ñaar Korent saar juróom ginnaaw loolu mbokk yi dañu leen bëgg a xamal li yiwu yàlla jur ci biir mboolooy ñi gëm te nekk ci diiwaanu Maseduwaan nattu yi ñu jaar ëmb nañu coono yu rëy waaye seen mbég mu tar ak seen ñàkk gu metti ñoo jur ci ñoom yéwén gu jéggi dayoo seede naa ne ñoom ci seen bopp joxe nañu ba fa seen man-man yem ba weesu ko sax saraxu nañu nu lool ngir bokk ci ñi yónnee ndimbal gaay yàlla yi te yemuñu sax ci li ñu séentu woon ci ñoom waaye dañoo jébbal seen bopp borom bi jëkk ginnaaw loolu ñu jébbal nu seen bopp ci coobareg yàlla looloo tax nag nu sant tiit mu ñëw àggale ci yéen ni mu tàmbalee woon seen jëfu ndimbal ginnaaw nag wone ngeen cawarte gu tollu noonu ci ngëm ci wax ci xam-xam ci farlu gu mat ak ci seen mbëggeel ci nun saware noonu it ci jëfu ndimbal lii du ndigal lu ma leen di jox waaye dama leen di yëgal cawarteeg ñi ci des ngir natt fu seen mbëggeel tollu ndaxte yiwu sunu boroom Yeesu Kirist umpu leen ni mu futtee am amam ba ñàkk ngir yéen ndax ngeen woomle ci ñàkkam kon lii laa xalaat ci lu baax ci yéen yéen ñi nga xam ni tàmbaliwu leen jëf rekk waaye yéen a am yéene ji daaw yëggale leen ko léegi noonu li ngeen mott li ci seen man-man tolloo ak yéene ji ngeen amoon ci seen mébét ndaxte joxe bu àndee ak yéene yàlla dina ko nangu di seet li nu am te bañ a seet li nu amul bëgguma leen a teg soxla ngir woyofal ñi ci des waaye na ñépp tolloole tey jii nag man ngeen a sàkk ci li ngeen barele faj soxlay ñeneen ngir ëllëg it bareleeg ñooña faj seen soxla noonu ñépp tolloole moom la mbind mi tëral ne ki dajale lu bari ëpplewul dara te ki dajale tuuti ñàkkul cant ñeel na yàlla moom mi def ci xolu tiit cawarte gu mel ni sunu gos ci yéen bi ñu ko laajee mu ñëw ci yéen nangu na te rax ca dolli cawarteem tollu na ba nu mën a wax ne ci coobare boppam la jóge jëm ci yéen yónniwaale nanu ak moom mbokk mi am tur wu rafet ci mbooloo yi ñu gëm ñépp ndax li muy waare xabaaru kirist te sax mbooloo yi ñoo ko tànn ngir mu ànd ak nun bu nu yóbbu ndimbal li ngir ndamu borom bi te mu firndeel sunu yéene ju rafet def nanu noonu nag ndax kenn bañ bañoo ŋàññ ci nuy toppatoo ndimbal lu yaatu loolu dañuy fexe def li jub du ci kanamu yàlla rekk waaye it ci kanamu nit ñi yónneewaale nanu it sunu mbokk mi ñu seetlu cawerteem ay yoon yoon ci fànn yu bari te mu gën koo fësal bii yoon ndax kóolute gu réy gi mu am ci yéen noonu kon ci lu jëm ci tiit sama nawle la ci liggéey bi ci seen biir ci lu jëm ci sunu mbokk yi ànd ak moom nag ndawi mbooloom ñi gëm lañu ñuy wone ndamu kirist na seen teeru firndeel nag seen mbëggeel ci kanamu mboolooy ñi gëm te dëggal leen ne noo yey wóolu leen